DJ Aliou nuyu naa la di la lu baree bari tey nag dama dama leen seetsi woon fii nga xamante ne mooy Cambérène 1 ñu nag nag ci foyer bi nga xamante ne moom foire bi ñuy wax euh, Jokko euh, ñu daal kuy nag tout ce qui est artisanat rek nit dina ko daal di utiliser fii nga xamante ne mooy foire Jokko moo ngi en face plage bi rek nee naa leen toutes les surprises yi nga xamante ne rek ko am sa biir kër maa maa sa fekk si waa Jokko foire ñu solal la ba mu waaye nag tey dama daal di daabu nag seet si suñu maman daal koy bàyyi rek mu daal di présenté boppam wax ñi moom itamit euh, li mu jëlee li nga xamante ne mooy ci foire Jokko maa nuyu naa la. maa ngi lay fay. yaa ngi ci jàmm bu baax. Ah, ça va sant gisee liggéey bi ak foire waaw d' abord je me présente. maa ngi tudd euh, madame ay Aïcha Sow de Crendiabo mhm. Dakar. Euh, foire bi bon fi mu nekk nii vraiment pour le moment c' est timide mais on pense que si kanam tuuti yëf yi dina gën a xumb daal waaw waaw. maanaam instant yi xam nga client yi miinaguñu ko mais fur et à mesure ngeen di dem incha allah affaire yi dina gën a yokk. mais xam naa ci kanam euh, dinañ euh, dinañ gën a bare ak euh, bon comme ça va durer dix jours. je pense que nit ñi dinañ ñëw wuy suñu bu baax a baax. incha allah maman ñu gis ni sax yow sa tenue bi nga sol dafa daal di aare lool te dafa woote ci li nga xamante ne moom la foire bu soxla muy tout tout ce qui est artisanal. waaw man damay yëngu si pâtisserie. xam nga Pagne Tissé moom moo ñuy accompagner euh, sur toutes les toutes les étapes euh, clés de la vie euh, de la naissance à la mort en passant par le par le mariage donc euh, ci loolu lay yëngu mais dama koy transformer ah en linge de maison naa si defar ay yére mais aussi maa ngi ciy def ay euh, couvre-lit Euh, di ci def ay nappe de table chemin de table dama siy def lu bare daal waaw lu bare laa ciy def daal dañ ko valoriser en fait waaw dootul nekk rek loo xam ne dañ koy denc ci fond wu armoire bi dañ koy euh, wane léegi di ko sol di ko lal ci suñu lal yi di ci bànneexu di ko lal ci suñu euh, table yi aussi waaw table à manger salon dañ koy def aussi salon marokin waaw moo gis ngeen fële ay euh, coussin de coussin de sol. ñàkk ñu daabu foofu tamit nga wan ñu carrément li fa nekk parce que man dama gëstu gis fi ay euh, décor yu rafet décor yi nga xamante ne franchement maanaam bu njëkk ba dañ daan muuroo waaye ñu koy. maa ñu koy denc mais léegi maanaam c'est pratique tout maanaam mun nga ko pratiquer ci activité yëpp yi ngay def biir kër wala si biir teeg yooyu. dëgg la moom. waaw mais nga may ma rek ma remercier ma remercier yàlla moom moo. moo waral lii yépp daal moo tax man ma ñëw fii maa ngi koy remercier bu baax a baax a baax baax na kon waaw euh, mhm. le drap un mhm. lii moom lii la ah pour euh, def ko ci sa lal ak ñaari tee d'oreiller bu la neexee lal euh, muuroo ko aussi waaw muuroo ko waaw sangoo ko daal surtout dafa baax ci sedd bi daal waaw donc yii sa ay coussin de sol lañu waaw su la neexee danga koy sànni ci suuf rek def sa genre salon marocain à la sénégalaise voilà <laughs> la sénégalaise waaw euh, nii lii xeeñ nii ma koy yëg ci place bi lan la. nga go gowe sénégalais macha allah mooy gowe gowe saaf la gowe xooj ñoo pànc se ñoo ànd. ñoo ànd yëpp ndax yëpp africain rek. waaw lan moo tax nga bi dama dugg rek kii bi dégagé ma quoi ma daal di miir si saas yi maanaam lan mooy njëriñu gobe ci biir néeg. <laughs> gobe dafa baax. waaw gobe dafay ubbi vraiment xetam dafa foor moom jël nañ ko xooj ko bii dañ ko xooj bii ñu saaf ko euh, dafay dindi odeur day dindi xet xet yu bare daf koy dindi. bi day xëcc daal day xëcc waaw. dañ kaa daan defee ay cuuraay mais ñu gis ni danga ko lal en même temps tamit euh, maanaam day tax ñii du ñu am xet ou day tax yi ndaw yi maanaam du am xet. non pourtant waaw c'est dama ko def dama ko décorer nii rek waaw